dafa noppi waxul ne ceel rek waxul benn euh, benn situation am na mu fekk ko nga gis ko mu ne ceel moom waxul bul ko ñaawe njort te loolu moo gën a bari lu muy am diw ba tey waxu ci daal di koy siise ci jikko bu ñaaw mu ne bul def loolu mën na am bu doon xam nga la ca biiram la mu yéene ak la muy xalaat danga gis ne moom moo la gën a yéene yiw ka ñi la wër di coow te ñu ci bëri di ay naafeq léeg-léeg nit am lu ko dal am koo xam ne dafa ne cell fekk dafa néegu te wax ci kanamam daf ko yërëm dafa jaaxle ci nan la ko war a dimbalee dafa amul pexe loolu yëpp mën naa dajaloo tax nit ki ne cell ci situation bi toog di xool waaye am koo xam ne ma ngi koy lii du yoon waruñu laa teg lii lu tax ñu def la lii man bu ma gisoon ki la ko def te li muy wax gëmu ci dara dara dara dara moo tax mu ne kooku noppi moo gën fuuf ñi nga xam ne ñoo la wër ba pare nekk ay naafeq kon loolu la xikma bi indi woon tey li muy bañ rek mooy ku waxut ba nga xam li li lim wax ne kon nangam la jëm wala boog jëfut ba nga xam lim jëf nga xam ne kon nangam la la yéene mais dana ceel rek nga daal di koy siise ci jugement bu négatif loolu moom baaxut nit toujours nañu rafet njort ci moom ba am lu leer ci moom lii lay def bu ñu benn yoon di wax allahuma salli ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain ñi ngi sant ñëpp di gërëm di jéggalu wasalaamualeykum wa rahmatullah